mu des ay waxtu képp ñu amal votu projet de loi d'amnistie générale waaye nag réaction yi ñoo ngay jóge fépp bu si njëkk di bu parti démocratique sénégalais ci communiqué bu ñu fësal PDS daal di xam ne ni que moom Yewwi Askan Wi rek lay topp ndax ñooñu la bile projet gën a concerné lépp lu ñooñu voté ñoom loolu la ñuy def donte ne sax si bile groupe Yewwi Askan Wi kàddu bi du benn su fekkee ne député yu Pastef dañoo fas yéene maandu ci mbir mi ñu puur ñoom nag dañoo daal di opposé wu si bile projet. bile position sax lañ nemmeeku ci député yu taxawu Sénégal ba léegi ci Yewwi Askan Wi kii di Déthié Fall itam daal di xam ne ni que àndul benn yoon ak bile projet de loi communiqué yi ñu fësal yépp nag bu Malick Gakou moo ci gën a jaxasoo moom président coalition Gakou 2024 daal di xam ne ni que àndul ak bile projet de loi waaye nag terewul mu daldi woo député Yewwi Askan Wi ñu voté bile projet su fekkee ne day tax Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fay ak képp kuy détenu politique mu génn ca kaso ba si jamono jooju frappe bu Guy Marius Sagna dafa daal di xam ne ni que àndul benn yoon si bile loi d'amnistie mu daal di sax dem bay woo njiitu réew Sénégal président Macky Sall ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy défendre bi projet projets ñu daal di rek xoolaat mbir mi bu ñu gisee bile opposition yépp